lu toll ci juróom téeméer ak juróom fukk ak ñetti bachelier yu yees nag la nguurug Sénégal ci jëwriñ ji gàlloo lépp lu jëm ci njàngale mu kawee mi daal di orienté ci université Cheikh Ahmadou Bamba bu Daaru Alimul Xabiir ci boobu les rentrée académique nag sëriñ Mamor Mbacke Murtada daal di profité waal daal di ubbi inauguré li nga xam ne moo di amphithéâtre bu yees bi nga xam ne nii mën naa jël ci lu toll ci juróomi téeméeri place euh, bi ki nag matière diine xam ngeen ni Dakar comme ni ko ni ko waxee léegi am na faculté boo xam ne lu jëm ci science la ak technologie bu nekk yi lu jëm ci agriculture la bii ak mooy science religieuse fii sax amoon na jafe-jafe bu bare ndax xam ngeen ne fii biñ ko ubbi dafa mel na moo doon cosaanle waaye moom lañ ubbi ndax am na sax ñoo xam ne demoon nañ naan mais classe yu sax dañ leen ko jox ñu def ko ay classe nga xam ne xamuñu sax lu xew liñ fi bari na lool lépp dañ koo sax tojaat dañoo tojaat bi ci pare ndax li taxoon mu mujj mooy ku ne xam na ni fii ci Afrique amul mën na wax bi sax néew na fi ay ay ay faculté yoo xam ne dëgg la pays arabe yi xam ngeen dirasat islamique usul lu nañu wax na ko mais benn tur woowu ci Afrique amul mën na sa wax ne amul tuux mu laaj Sénégal loolu kon day aaju Sénégal tamit état la état du caa gën da ngay jëf nag kaalawu soxla sëgg ni leen déedéet du loolu état lépp lu muy def ci loo xam ne xam-xam la ak lu mu mën di doon daf koy segg xool ba xam ñu proposé loolu moo tax bi ñu tàmbalee ñu tàmbalee ci science tàmbalee ci technologie ba état bi gis ne lii kat lu wér la ñu soog noo ñu soog a dugg nag ci loolu moo tax fii moo mujj moom président bu université Cheikh Ahmadou Bamba daal di woon tey invité ay boroomi xam-xam yu bëri ku ci mel ne Souleymane Bachir Diagne mi nga xam ne ni moom moo jiite conseil bi waaye itam ki nga xam ne moo di professeur Mamadou Sankharé ak yeneen i boroomi xam-xam ci biir réew bi Sénégal yu nekkee ci région bu Njaareem moom Serigne Mamour Mbacke Mouxtada dellu si di ñaax ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo di étudiants yooyu lee ngir ñu daal di lépp loo xam ne ni barrière la bu doxoon seen diggante ci lu jëm ci wàllum langue waaye itam ci lu jëm ci wàllum tarixa ak yeneen yu ni mel bu et bu université boo xam ne par par loo fi nekk ak Mbakke Boussa Ndawa Cheikh ay affaire yooyu amul loolu fii jàngukaay la xam-xam li fi nekk mooy ku fi ñëw te nangoo jàng am nga fi sa cëru bopp mais amul benn loo xam ne moo fii tax ñu naan la kii nga bokk fële nga bokk yooyu amu fi loolu amul amul fii loolu moo tax ñu jéem a dindi barrière languiste barrière langue bi mooy suñu réew yi dafa mel ne. làkki français bi moo fi moo fi moo fi moo fi yaatu ci la ñuy liggéey ci la ñuy def dara d'accord kooku amuñu ci mën ñu ci sore wante ñun ñi nga xam ne dañuy xam kenn ñu tënk ci benn làkk war ñu xam luñ ci mën a am ci ay làkk parce que euh, ina jàllakum sooba doo xabaay li taaruf taaruf mënoo ko def ci koo xam ne ñëw ku na taxaw di xool sa morom kooku taxul ñëw taaruf mais taaruf mooy kenn ku ne mën a wax ak sa morom lam am nga jël ko la nga nga jox ko ko. fileeki Daaru Alimul Xabiir nag benn faculté moom moo fi nekk ñu koy wax faculté de sciences religieuses et humanités et des civilisations moom Serigne Mame Mor Mbacke di dikkaat ci li nga xam ne ni moom moo di njariñul faculté bile ak yeneen i projet yoo xam ne nii fas yéene nañu koo dëgmal mu jëm ci mottali liggéeyu université bile. bal dañoo bëgg it fii mooy Euh, waaye am nañ fu ñu am fa nekk fële ci ci soriwul noonu foo xam ne fu yaatu la fa lañ bëgg a def rectorat ak ay faculté yu bari ndax xam ngeen ni faculté yi dañ ko tasaaree am na bu nekk ndar bu mag boo xam ne industrie lañ fa def ak tourisme religieux xëy na yéen xale yi bu ngeen waxtaanee professeurs yi ba juboo ci orientation yi xëy na bu ngeen demee ba egg ci loolu kenn ku ne dana tànn loolu ñoom ñoo ci mën a wax ak tànn ak yéen euh, muy Bambey muy Dakar muy muy muy muy muy muy Ndar ak fii ci Mesere kooku santé lañ fay def loolu lépp kon waaye teewul danañ def benn pause première pierre ci faculté yooyu ak rectorat bu mag boo xam ne ñu ngi koy def foofu ca tëjtal ndaje ma ki nga xam ne moom moo di Souleymane Bachir Diagne te jiite euh, commission scientifique bi ma ngay dikkaat ci li nga xam ne nii moom la université Cheikh Ahmadou Bamba mën a dugale loxoom ci sénégalais bu yees bi nga xam ne nii fas yéene nañu koo defar sénégalais bu nga xam ne nii day géeju ci wàllum diineem waaye itam géeju lool ci wàllu xam-xami àddina yi ba mën cee liggéey lu ko jariñ loolu dafa justement li ko tax a jóg mooy sénégalais bu bees bi ñu war a tabax ndax Serigne Mame Mor dafay wax toujours ni dafa bëgg ay ñoo xam ne ñi mot nañu imam mot nañu ingénieur xam nga soo ko waxee noonu rek tënk nga lépp soo nee mbat nañu imaam mooy ñii kat dégg nañu seen diine ba nga xam ne bi non seulement ñi ngi ci euh, guider seen bopp waaye mën nañ ci guider ñeneen parce que loolu mooy imaam mooy kii taxaw ci kanamu nit ñi nga mën a roy ci moom waaye ba tey kooku nekk ingénieur soo déggee ingénieur li mu symboliser mooy science yi gën a pointu ci monde moderne bi ñu ne yooyu ñaar la bëgg ki nga xam ni kii suñu ne eh, teg jukkiw alxuraan yi mu jàng ko wala suñu ne ñu ngi julli mu mën a jiite ak ba pare nekk koo xam ni kii itam xam-xam yi gën a moderne yooyu maîtriser na ko ab fàttali ñi nga xamante ni ñoom ñoo di étudiants yi nag ki seen troisième cycle ki nga xam ne moo di professeur Souleymane Bachir Diagne ak yeneen i professeur yoo xam ne ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllum njàng ak njàngale mu kawe mi ci réew bu Sénégal ak àdduna wërngal këpp ñoom fas yéene nañoo dugal seen loxo ci moomile njàngale mën a mucc ayib waaye tam ci bile faculté